Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée. Hein. Merci de vous merci de vous merci également gars de bails, des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Hein. Box il fait folle maintenant 14 régions du Sénégal. nous également l'hôpital de sécurité de février. Nous nous aussi judiciaire. nous nous nous On avance ensemble dans la magie TV. L'actualité, on continue actuellement actualité bi ñu fas yéene donc Abib Diallo def benn publication Bah, comme on a gagné yi jamono ji ah ñi ngi si commencé di wax boo xam dafa publier ñaar ñii di Sofiane Diop ak Yaya Mara Kama et aussi Khalid Koulibaly bi nga xam nag moom Badiashile boo moytu ñoom lañ fas yéene titularisé léegi du côté de Chelsea Et si ay leeral mais laata bon, nag li nga xam ne lañ waxtaane mooy gars yi ki ngeen gis ni di CR7 Cristiano Ronaldo moom actuellement il est dans les airs hein. Cristiano Ronaldo gars di entraînement la woon di encore il veut montrer à tout le monde que il est toujours le maître des airs gannaaw bi nga xamee ne record am kii di Victor Osimhen moom moo ko daal battre ci soo bi gën en matière de football ki xam ne nag mooy donc kii di Walid Regragui

mooy donc kii di waa Barça ñoom daal ñu ngi tagg daal ñooy bi nga xam ne nag Lionel Messi tabb nañ ko kii aussi di Alexia Putellas moom lañ tabb aussi mu nekk li nga xam donc meilleur joueur bi nga xam a moom lay jàngee lu bëri bëri mooy Robert Lewandowski le joueur polonais donc nee na ba mu nekkee Bayern la ko ne Lewandowski daf nekk attaquant boo xam ne attaquant moderne benn la et que buy jël décision da nga gis déjà ci appel mi dafa yëpp donc néna mom genre attaquant bobu dal le bëgg a doon moo tax muy roy si ki donc kii di euh, donc Robert Lewandowski li nga xam ne aussi nag gars yi moo aussi ki nga xam ne mooy donc kii di euh, Ibrahima Konaté moom nag ak Darwin Nunez entraîné nañ nag ah, ne mooy démb ak xam ne mooy donc équipe bi di waa euh, Liverpool ba tax gars yi jàpp euh, am possibilité bokk ci li nga xam ne nag mooy liste bi waa Liverpool déposé contre Wolverhampton ki nga dina toog lu tolloog semaine de jouer ba tax na fi ne nii ñu naan nag ki nga xam ne mooy donc Kalidou Koulibaly ba matul moom nag ah, dina am opportunité jouer maintenant nak li am solo moy nak est-ce que moy grand poteur da koy daal titulariser mom ak ki moy donc Badia Chil mais laata boobu aussi dañuy wax ci ki nga xam donc ki di er-, Eric Ten Hag Eric Ten Hag bi nga xam nak donc bamu ñëwé ñëwee du côté de Manchester United ba légui gars nombre de victoires yi gis ngeen ko ah, donc nombre de matchs joués 40 nombre de victoires donc 29 am li nga xam ne donc 72 de chance de gagner une rencontre ki nga xam ne également mooy Eriksen gannaaw bi mu gaañoo ba léegi ñëw aussi ci Manchester United bi tamit mo nek premier trophée bu mu daal di gagné ndax bamu mu ci Tottenham gagné woon dara lolou daal la gars di fësal ki nga xamne aussi nak moy donc ngeen gis ni ah donc di Jude Bellingham moom ak ki nga xam mooy Mason Mount maa leen ko doon wax ne len jamono ji nak gaay japp na ñom ñaar ah, donc bokk na ci joueurs yoo xam ne Manchester City bu ñu leen mënee gars yi yóbbu yoon dañ leen di daldi yobbu donc jënd leen manam indi leen fofu nonu parce que Mason Mount signé gul ki aussi di Jude Bellingham club yu mag mag mag ñu ngi koy daldi courtiser li nga xamne gaay aussi mo jëm ci li nga xamne moy donc li di Vinicius Junior maa leen ko doon wax sànq mais nag gars yi gis ngeen ko ki baangi ni donc Vinicius Junior il va porter l'année prochaine li nga xam ne donc numéro 7 bi loolu la gars wax donc à la place de Cristiano Ronaldo ba nga xam ne moom la kenn sol ko wax na leen ko Benoît Badiashile la ah, joueur Monaco la bo xam ne Chelsea da ko indi bam ko indi nee naa leen gars yi Benoît Badiashile dañ ko indi pour mu de concurrence ki nga xam mooy Kalidou Koulibaly parce que ñoom ñaar ñëpp axe gauche la ñuy di jouer fi mu ne opportunité peut être amna pour ki nga mooy Graham Potter daal di tester Kalidou Koulibaly à droite bàyyi Badiashile à gauche vu que ne ki xam donc ki di Thiago Silva dafa daal di blessé ñu ne ñetti semaine lay tok du jouer donc aujourd'hui l'opportunité est donnée peut être à grand Potter de tester le duo défensif diggante Kalidou Koulibaly ak kii mooy Benoît Badiachile ah donc loolu daal fi mu ne di waxtaanee li nga xam nag moo jëm si ki nga xam ne mooy donc donc Kalidou opportunité gars saisir nag occasion parce que wax leen ko fi ne nii waa am na lu lu muy wax parce est-ce que tamit euh, ñoom booy paré wuñ pour ñu équipe nationale du Sénégal wala boog tamit euh, ki nga xam mooy Abdou Diallo nekul di waxtaan ak ñom pour ñu daal di ñëw équipe nationale du Sénégal ce que est sûr mooy que ce n'est pas la première fois aussi euh, li di am parce que tamit mom mi Sofiane Diop ba Sénégal gagné li nga xam nak moy donc coupe d'Afrique bi dafa jël photo ki nga xam ne donc Abdou Diallo daal di koy poster hein donc lu nek nekk loo xam du guleet muy daal di ama hein. donc ku ni mel donc Ismaël Jacobs defoon nako ba Sénégal nekkee ci coupe d'Afrique bi gagné ko loolu nak taxoon après mom par la suite mu daal di ñëw ki di Sofiane Diop def ko Sénégal yi bëri jàpp na mom dafa wax né benn tànk mi ngi Sénégal Sénégal mais en tout cas le joueur lui-même il est en train de réfléchir Il ah, mi ngi xalaat xamagul exactement lan lay mais Abdou Diallo c'est def mel ne signal fort la pour ñaari euh, boy pour ñu rejoindre en tout cas équipe nationale. du Sénégal gars c'était les informations que je voulais vous donner En ah, toujours un plaisir de vous servir di jégalu encore une fois di jégalu ci bruit bi mais nek ci tali bi war leena a jox information yi ni mu waré. on avance ensemble dans la magie de e TV gars lu bax ci yéen la bu ci ñun la oh, Ja ngeen au plaisir.